andi ko fii dugg biir euh, Bawal wala boog bi Medina wala bi bi Yaraax ginnaaw raay jël fee ki nga xamante ni mooy tafaaleer andi ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak ci li nga xamante ni ci la ñu jógee bëgg waxtaan ak yu nekk seen kanam ak fi ñu toll ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bëgg nga ma noppi mais promoteur yaa ngi wax tey combat bi taxoon na suba yàqu na détail yooyu bëgg naa day daal tey daal mu leere fii te ñoom ñaar nag defe naa ne seen diggante ñoom ñaar comba làmb du ko dàq ba tax na dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi beneen di nuyu naa la. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp àq si weeru koor bi. ndax dañu dugg si weeru koor bu sell. si mm-hmm. mu nekk weer boo xamante ni weeru ngëneel la. Mm-hmm. di lay sant tamit bu baax a baax di sant sa caméraman yi. Mm-hmm. di nuyu dafa Leer ak ñu mu àndal. di lay jaajëfal waay.

Uh, waaw wala ngaa déggul séeréer bu gaal nga <laughs> gis ma gis ngeen mbokk yi Tapha Leer laa fi dalal ak ki nga xamante ni mooy Blindé Blindé suma juumul yaa ngi ci ñaata combat pense que en fait bon maa ngi ci 14 combat. waaw mais Blindé mi tey bi laax ba. Euh, kenn xamatul lu muy nuru. micro bi ji kenn xamatul lu muy nuru. ñu dañoo làmb kenn mënuñu génne si làmb ñu dañuy wàcc simple bi di toj mhm. di wàcc bëri arène bi xoolal di wane suñu bopp mhm. kon ñun kenn mënuñu génne si làmb mhm. te dañuy mobiliser am ñu bëri ñu topp suñ ginnaaw kon ñun waxantewuñu dañuy wane gars yi di gis dëgg ante làmb jee xam nga lan moo fi am léegi mooy da ngay promoteur bi day ñëw war a teg ay combat jànk war a xool mbër yi war a daje ñu war leen boole non day dem xooli moom lu ko neex ak lu neex mbër bi. waaw des fois ñu topp mbër bi ne ko lan nga. li nga bëgg mbër bi ne leen carrément jox leen ma caméraman bi ñu dem si caméraman bi nax ko nax ko ba mu ñëw bëri. loolu du làmb. Hmm. doxul làmb. làmb da xool ñu gën a taxaw. Hmm. ñu gën a mën a dem. Hmm. nga boole leen. comme kalaaf yi ñu doon def ñun Balla Gaye ñun Modou ñu ñun Papa Sow. comprendre force day am champion yu si génn. waaw da xool bi làmb loolu day doxal làmb su ñu nee làmb mu ngi dee mu ngi dee mu xool bi ñuy boole ñoom doomu dàngu. voilà ay ay ay ñoom soq. voilà ay ñoom raamdaan. noonu la demee nag ah. xam nga. kenn yàqul lu dul promoteurs yi ak mbër yi. parce que hmm. promoteurs yi ñoom tam dañuy bëgg lu leen neex bëgg lu neex mbër bi. mbër bi tam hmm. bëgg lu ko neex ba du jël yenn combat yi. Hmm. amul lu yomb. MMA soo fa demoon nga dóor fa nit kaw yow yaa gën a gaaw am combat kaw. yow mi daan sport soo demee di dóor gaa yi ñu kaw yaa gën a gaaw am combat mu kaw. ki ñu daan. voilà soo demee tamit si simple bi di yow yaay ëpp sang. micro bi nga dugg si biir làmb ñu lay yuuxu. kon ñun bëri dóor koy yàq nañ bàyyi ñuy def te boole gars ñuy bëri. comprendre te ba pare mbër yi tàppet su fekkee dañoo tàppet ñu làmb ji bàyyi gay gaynde yi jaayante yow da ngaa yàkkamte yooyu fa lay commencé. Hmm. maanaam li mu wax dama koy dëggal. Mm. maanaam promoteur léegi teguñu làmb léegi maanaam ñoom xaalis la ñuy wut loolu ñoo gën a yàq làmb ji parce que da ngay ñëw gis booy mbër talent ku ne ci yoon ne ci def làmb spécial nga ñëw fekk benn booy bu soog du ci làmb jënd trois bloc ngi ko teg ko bàyyi ki mën a bëre ak ki ani amateur dem tegu ba nga xam ne ay bloc jën ñuy jënd loolu moo yàq làmb ji. Mm-hmm. parce que Serigne Touba dañ tëg mbër yi mbër yaa ngi fi toog am pagaay amuñu combat ñoo xam ñu bëree mu neex amateur yi ñëw làmb ñi ñii ne benn bàyyi xel lamb léegi dafa dee

adduna moom des fois même ci li ngay liggéey sax da nga jékki-jékki dog dal la wala soit nga xaw rek la waat pour mën a demaat fi nga dem. la moo nekk sa problème ci làmb parce que su ma fi nekkee sax di bi nga bëgg diw bi nga bëgg temps. Ah. ndax fi mu toll nii am loo xamante nekk na fi faaw mu juqi ko mu génn. lan moo nekk sa problème ci làmb. ça veut que. non jékki-jékki dégg Tapha Leer Tapha Leer bu ñëwee Tapha Tine. Hmm. Tapha Leer lañ ci teg mais léegi dañoo jékki-jékki jékki dafa mel ni Tapha Leer dafa fay am na yenn boo yoo xam te ne bawol fi mu toll nii boo yi fa génn ay moo kankang ah mbay mm-hmm. guy mm-hmm. ay ay njaaytin génn dafa mel ni sax yow yow bokkutoo bawol dafa mel ni gaa yi la fàtte léegi. <laughs> waaw loolu dëgg loolu moom ñun ñu ma ay champion lañu. Mm. maa ngi seen yoon doon yoon bu leer. comme da nga lam moom man am na ñu ma dàq bëre foofu nekkoon fii ñu fii. Mm-hmm. kon tey soo fi nekkoon ñenn fii dama koy dama koy dama koy accepté. dama koy dama koy dama di ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex yoon bu leer comme da nga mais lan mooy sa dara maa ngi def li ma li ma def maa ngi koy def maa ngi entraîné maa ngi ànd ak ma war a àndal maa ngi maa ngi bëre man bëre mu aar mais simple bi. yaa ngi wàcc simple bi moom. non loolu ngay laajte maa ngi bëre simple bu baax a baax. kana kana la daan. ci arène bi. waaw arène ma daan Gamou Gueye Fils de Balla général. Malick waaw non pas général Malick de. général Bale. général bu Faas bu Faas. Hmm. ñun daal ñëpp say morom lañ de. Mm, mais su ma ñëwee sa combat bu mujj bi dama fay taxaw tuuti. Mm. sa digganteeg fi sa baal la. Mm. coow li bàyyi woon na sa digganteeg moom xas-xas loo bi. mais bi nga ñëwee dafa mel ni kenn xàmmeewu la. waaw mais xam nga loolu wax la ma ñu an nañ bàyyi bu daanoo ñu ne xamewula wala je ne sais pas. li nga doon wax li nga doon wax xam nga lamb moom ku ne xam ne booy préparé moom li la war mooy wax sa adversaire lii laa bëgg lii laa def mais li am suñu borom moo koy dogal. mais li nga nga wax bi nga ñëw dafa defaloo ko. man mosuma areeral mbër ba paa ci ginnaaw man mosuma areeral mbër paa. dañoo bëri man mu um jàppante mu songale ma ma teg mais ñëpp nee nañ songale nga am. li la waaw man songale am man. waaw man busuma man benn combat laa am mbër songale ko muy sama premier combat à part pour xool ko ma bëri amul songale. amul benn combat bu ma bëri daan bëri songale ko. bu mais mais mais Fils de Balla mu woon na laa songale. ngeen tolloo taay. waaw mais non xam nga lam moom lam moom loo bay rek ñu daan la lam détail boo bay ñu daan la. mën naa ko daan mën na ma daan lam ñu du ñuy daanante da mën mbër fuuf mu mën mbër fuuf mu daan la mbër mën la nga daan ko jour bi nga war a ñàkkee mënoo fexe bu am. yaa fi sa baal ko mën. no xam nga mbër moom mënu la daan nga ne ko mën xam nga lam fii kenn mënul kenn. dañuy hmm. daan ci suñu biir rek xam nga mais kenn mënul kenn waaw. Euh, su ma ñëwee ci Blindé Blindé yaa ngi ci ñaar 16 combats nga wax. non en fait maa ngi ci 14 combats. waaw mais Blindé lan la la déggee bon en fait <laughs> ban classe nga bàyyee. sant yàlla <laughs> ban classe nga bàyyee. classe nante rek. sem <laughs> un wala sem deux. nante rek kon bi wax France parce que damay bañ. non mun nga bañ a jàng sax dégg français. français ah. làkk la rek. a jàng sax ngay wax may wax dégg nga tubaab. non ñuy sant yàlla rek lu ñu si mën rek lañ koy wax ah. loo ci mën waxal ma dégg. mooy li may wax ni ko koy dégg rek. waxal waaw en fait bon. je sais pas ah, <laughs> kon de loolu France mbër. yaa ngi ñaar combat 16 wala quinze nga wax. bon maa ngi ci 14 combats 14 combats. waaw ñaata 12 victoires. 12 victoires. deux défaites. waaw. palmarès baax la de. mun kenn mënu ko dindi si làmb. mais mais su ma xoolee yow sa sa sa sa sa bëre ak sa maat combat dafa xaw yéex différence. waaw lu ko waral mooy. man promoteur yi dañ may wër mbër yi ñoo ma dul wër promoteurs yi chaque jour ñu tëgg ñu wër ma pour tëggal ma combat ba nii am na promoteur yoo xam ne bëgg nañ sama combat ante mënoo fi def dara si làmb mhm. nekk si làmb xam nga ay temps nga doon ñëw kuñ la boole nga bëri kuñ la boole nga bëri. Mhm. nga dem ba benn instant ñi lay jox combat doo gis ki ngay bëre ba suba si guddi lañ lay wax jouru combat bi su suba la si guddi lañ lay wax carrément kii ngay bëre nga dem làmb ja di wër ko ngay bëre ñu ne la kii la nga bëre daan yooyu yëpp na nga doon sa bopp hmm. bëgg a génn quoi wane sa bopp bokk si làmb doo dem ba toll foofu wane sa bopp si làmb ba gars xam la si làmb hmm. yaa ngi dégg ngay wëlbatiku di bëre ñoo xam xamante waroo bëre ñoom borom bitigu mbagg boo gis magasin moo nekk si biir xol bi te ñi yore magasin yi amul kenn koo xamante ne am na lu ma lay tiit wala lu ma lay ragal ñun làmb lañ am dañuy mobiliser am jàppale. sa combat mujj bi yaakaar naa woon. maa bébé te ay mbëri naqaree daan laa daan. Mm-hmm. Mm-hmm. jël Aliou Mbaye la dañ ko jël moo la mën. ma jël ko daan ñu ne ma njambaat bu ko jël moo la mën ma jël ko daan te njambaat lu ma boole moom sax. dama dem ba awma yenn combat yi. micro bi tuuti. du ma boole njambaar dama dem ba mënatuma am combat ma jël njambaar. bëggoon bëre. waaw. yaa ngi dégg. Mhm. su ma la limaloon samay combat samay naataango laay bëri. ñoo xamante ne bii suñu taxaw si ko nga ne lii combat. làmb amul raw amul da ngay gis mbër bu am tur mu leer ne kii yaa ko mën. Mhm. nga gis koo xamante ne amul tur booy la yàlla defal ko gabari mu mun bëri am jàppale am lépp. nga xam ne lii combat la nga ne du combat parce que maa ko raw. waaw. fi làmb ji kan moom si mën a rawati si génération yi nekk fii. ku am 14 combat amul kan la dañoo daan mbër ma daan mbër. ñuy duy may duy ñuy yëngal may yëngal. ba xoolee sa defet sax dafa néew doo defe comprendre sax ba pare teg si lan li ma def defuñu ko. muy lan onze kaw la am. onze kaw onze. onze kaw ñu ma daan sax laa dama leen kaw xelu xale rek moo ma topp ndax xam nga ni ñu ma daan soo la seetiwaatoon suba suba ne leen carrément avance ba leen def bee buñ balaa la ñuy dégg rek balaa lin bi di ñëw ñu wan la ginnaaw dem kon na yi ñëw ñu bëree ñu ubbi làmb ci champion yi mbëkkante yaa ngi dégg. Mhm. sànq am na loo ma doon laaj ci Bawol. waaw non loolu pose ko ma ñëw. dafa am dafa am lu ma bëgg a parce que kii. <laughs> Eh, dafay jël avance su jàmbur. waaw ah. boog dafa waxaale promoteur. Ah. bañ ne combat bi taxaw na combat spécial mu dem ba ci biir. andi ay yoo yoo xamante ni man comprendre parce que man. Tapha Leer combat kan moo tëgg combat moom dafa woon bëri ci combat guy ak combat bi jàll na mais da ci woon bëri dem ba ci biir mu andi tànk yoo xamante ni kenn comprendre parce que Boy Seye ñëw na fi. sa digganteeg Boy Seye la. Boy Seye nee na waxaala ngeen waxaala ngeen ak promoteur ba nga joxe sa accord mu joxe accord am. Hmm. moom mu nekk di waaj. ak hmm. ay mbokkam nga nekk di waaj ñu dem ba ci digg bi. Hmm. nga ne bëreetuloo lu tax loolu. waaw Ousseyn foofu dama. parce que nag mer na de parce que mi fi ñuy nee na. Euh, ñemewuloo ko. nangam nangam li mu wax yëpp dégg nga ko sax xanaa. Ousseyn dama ci sawar tontu sax moom su meree maa gën a mer fuuf gis nga mbër yi dañoo war a bàyyi toog ci plateau yi fii toog yor sa micro di wax loola neex. Hmm. wala ngay wax wax am ni ku la dégg du la nawloo. comprendre nga lan lay xool de booy seedee lan lay tapé ci moom. ah booy yor lu mbër yorlu ba may ragal booy seedee. man Matar Ndiaye moom moo woo téléphone na sa ko mbak diw bëgg mën na ko des na ci yow ñu waxaale ba juboo ci prix. Hmm. combat spécial guy rëg-rëg waaw. dama dégg ma ne ko jox ma avance mu ma dinaa la jox avance mais ma de une semaine. Mm-hmm. ma toog une semaine dégguma ko. parce que bi mu waxalee bi mu nee combat ba dama woo sama staff ak sama mbokk ñu waxtaan bu d' mm-hmm. parce que nag combat moom li ko taxawal mooy li officiel combat mooy ngeen signé ci kayit mu jox la avance nga dem pare kooku am na ko combat. waaw ay wax kese du tax amul amoo fa combat. Mm-hmm. may naa ko presque topp naa ko presque dans deux mois. bi ko waxee une semaine. bi mu ko waxee une semaine toog naa deux mois di ko téléphone pour ko avance munu man munu may lakk tey suba Birane Ndour na xaar leen dugg na fii tamit loolu tamit munu nekk. Mhm. man dama am yenn yitte ma dox. ak yu may yu may yu may ma nekk. Mhm. comprendre nga mën na ko nag mbër bu fekkee moo mujj moo ne ko mbër bu fekkee combat bi mën na koo teg nag may wax mën ma bu fekkee gis nga leneen lu ko tànnee nga dem bëre ji. Mhm. man ma la téye. waxal woon ma mais joxuma xaalis ma jox avance mbëri booy say deux <laughs>

man ci man gis man nag mu ngi boo gisee man bëgguma ci média yu bëri man li mbër yi wax man mënu ma ko man mënu toog ci média di wax loo xam ni dëgg du nekkul ci man di wax loo xam ni teguñu ko fen man yooyu man dama cee nekkul man lu ma lay wax si man loolu dëgg la ci man. mais nag yow mais nag mais nag xam nga boo xoolee bi nga bëri Fils de Balla ba léegi bëri waatuloo sa combat yi taxaw di yàqu parce que tout récemment maa ngi dégg sa digganteeg euh, Bulldozer tamit ñoo ngi ko doon dox mais moo tax man la Buldozer moom nee na man combat bi man man laa dem a ak Tapha Tine jour combat bi. non non non déglu ma non attends ah. attends damay leer foofu. dimanche dama dem combat Tapha Tine la àndal combat Bombardier amut seen. Mm-hmm. fu ma taxaw nii. idaal ñi moom ma moo woon ma sa combat bi Buldozer laa bëgg nee na yow la bëgg a bëreel. waaw ma ne ko des na ci yow. mu woo Buldozer woom ñu taxaw man ak moom fu mu foto ñu man ñoom xëy woo ma téléphone. ñu waxaale bu jubóo ci prix man man naa la jox avance. ñu dem mu dawal une mënuma ko ma bi ci kay la yàqoo parce que prix bi muy laaj ñu xaw ma lan lan lan lan bu nii barke yonent yàlla Muhammad damaa woor yàqoo wu ci yow. barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Fallou Ndiaye woowaat ma ne sa combat bi de la bëgg ma ne ko des na ci yow ñu waxaale man ak moom ba juboo mu ne ma dinaa woo Matar Ndiaye ba léegi teel a ko rek. kon daal su ma déggee. man si ma jaar xam nga xam ni problème bi. man mhm. ma man comme li ma expliqué léegi rek. man bokk ma ci mbëri nga toog ci fii di wax ci loo xam te man lu ma taxaw fii la ko rek non bëgg la ci man billaay walaay man man du ma waxantu Fallou man maa woo téléphone ko foo torojee bi nga bi de mm-hmm. Matar Ndiaye temps la ma wax ma ne ko amul problème. fekk wuli de moom woo ci états ma dafa leer mun naa mun ma jël combat bi ma woo Fallou Ndiaye maa ne ko woo sama téléphone ne ko Fallou Ndiaye foofu mënuma combat bi mu ne xaaral dinaa woo Matar Ndiaye moo Matar ma ba jur bu lakk jërëjëf ba tey jii avance bi bu ñëwoon keroog du fanaan ci keroog ma ñibbee ko. kon daal kon daal kon daal fi mu toll nii su ma déggee mooy Bulldozer li mu la wax naan euh, yow yaa ne da xaar xaw ma nga wax a kan fi mu toll nii ci diggante moom moom moom noppi na moom. moo tax moo tax may la gis nga gis nga gis nga mbër da ngay toog fii di wax ci mbër sa morom mbër loo xam ne nii yow leeru la bala nga ci loo xam ne yow man yooyu dañ yooyu mbër dañu bàyyi yooyu noonu mbër nit ki lu la leerul bu ko wax man lu ma leerul sama adversaire du ma ko wax man lu ma leerul ci lamb lu ma leerul man du ma ca wax xam nga man bi ñu ma wooyee barke alxuraanul karim jour bi mu wooyee laaj wax sama mais comme que moom xamul fu mu yàqoo na ne moom xamul ku mu yàqoo rek mais bu ma defee moo doog ma man lan laay doog ci Bulldozer. su ma la àndaloon Blindé mi lan avance Blindé looy wax. su ma ko ñëwoon tey jii ma ne ko sama poos dem ndogu ji sama kër. musiba la de si yow musiba la de. waaw ban genre musiba. musiba la de. Euh, dafa am lu ñu doon wax parce que yow nee nga moom moom dafa ne bawol bawol yi ñemewuñ ko. ma ne ko yan genre bool bool daa bëri mbër yan mbër ci bool. bool bool yi. non xam nga bool daa bëri ay mbër yoo xam te ni maanaam car macha allah bari nañ ay champion. Mm-hmm. maanaam boo nee mbiri bool ñemunu ma da ngaa généré sa mbër yëpp te mbër yëpp ñemul. Ousseynou. Mm-hmm. dañuy waxtaan si làmb quoi. dañuy waxtaan si làmb. waaw. nga dafa leer nii. gënuma dëggu. Mm-hmm. nit na dangay ngay dëggu. waaw. te nit lu ñuy wax sa ginnaaw rek fexeel ba ku la jege nga moom ko. sëñ Sambay moo doon wax loolu du dëgg. bon soo déggee ma ne mbëru Bawol ñemewuñ ma. dama am fu ko teg fu leer. foo ko teg te tegukaay wala. waaw soo déggee tamit tamit beneen sens mbari bawol ñemewu ma nekkul ñëpp nga mën a bëre bawol. Mm-hmm. dëgg loolu dëgg. dëgg la da ngay bëre ñi bàyyi ñi ñuy bëre ñi nga bëre ñi. dañoo sama sama combat euh, bébé Birame. Mm-hmm. maa ngi njagas sa woon. yaa ngi njagas waaw. ñu koy lijjanti pour bëre ñu koy lijjanti pour bëre ñu koy lijjanti muy daw si moom di daw si moom di daw si moom di daw si moom ba sama combat bébé Birame taxaw. Mm-hmm. mbay yi kii ni ñëw taxawlaat sama combat njagas combat bee taxaw na ma xam ne kii njagas mi bugguma mëccëm mhm. ndax nekk ne nu ko xamante daam doole gémmiñ waaw mën a bëre mën a xeex ma ñëw rek <laughs> am doole gémmiñ mhm. ma xam ne kii xiifoon naa ko trop kon lii du ma du ma rëcc mhm. ma jël avance bi far yàlla def munuma mbay ne ma munuma bu njëkk bëre kii kii di wax man ngay njëkk bëre looloo yàq combat boobu man a bëre bébé Birahim ba ma bëree bëree Birane ba pare xoolatuma njagas. Hmm. leneen laay xooli sama kanam. ba ma bëree bëree Birane ba pare dégg nga ma chaque jour may wax si béjaay ju ma war a bëreel. Hmm. ñuy dem di dem ma am seen junior wax ñeneen ak ñeneen man ragul ma lu may wax kenn du ma si koj. Hmm. waaw làmb moo ñu boole non nekk question booy parcelle am naa fulla koo xamante ni sama bopp boo xamante ni gëm naa sama bopp boo xamante ni su ma kenn sax mun naa régler sama problème. Mm-hmm. man dekkuma damay ànd ak ay nit wala nit topp sama ginnaaw may wax lu ma wóorul li may wax dama wóoru mm-hmm. ñu dem si biir ñu dem ñu dem ñu dem ba benn instant ñu woo ma di may wax waxu bursin waaw ma leen su fekkee pare na man pare na mm-hmm. waruma sax bëreeg moom su fekkee pare na pare na champion la nag wante daa am mu jógee ñu dem ba si mu yàqoo si moom ci bursin waaw ñu ba si biir nit ay nit bëggoon sama combat ak Ndiaye boobu moom dama leer nañu. ak Ndiaye Tine waaw. ñu seeti ko muy lakk-lakkal nii nii nii ba mujj bi xam nga combat bi annulé beneen promoteur ñëw quatre promoteur bëggoon nañ combat boobu. sa digganteeg euh, Ndiaye Tine. voilà mun naa la limal sax. mais Ndiaye Tine nag tàppateewul noonu de. mun naa la sax limal promoteur yi man li may wax dama ko teg fu leer. Mhm. su ma toogee fii di wax ci Ndiaye Tine wax ci Ndiaye Tine day mel ni Ndiaye Tine moom fii Ndiaye Tine indiwuma fi su ma sañoon damay am ku ku ku raw yi parce que Ndiaye li ma def si làmb def si làmb defagu ko si làmb suñu waxee dëgg te yàlla tax mm-hmm. champion la nag mbër la ah, onze su ma nekkee di wax si Ndiaye Tine mel ni Ndiaye Tine moom fii bi mm-hmm. te Ndiaye li du fi xooluma ko sax gisuma ko sax Ndiaye Tine bañee benn bañ naa ko ñaar ñu ko gën a nekk champion ñu fi mm-hmm. yaa ngi dégg man maa yi ñoo ko bëggoon rek ma wàccee sama bopp bëgg a bëre moom bëgg lu neex amaat voilà yaa ngi dégg est mm-hmm. beneen bi si topp mooy. Tapha Lev champion la. Mm-hmm. bëri na ñu ma bëriwul man. Mm-hmm. yaa ngi dégg. tey làmb day dox. ñoom ñoo jiitu si làmb. te ñëw naa def si diggante bu gàtt loo xamante ne tey jii sax foo ñu romb diw ne diwa ngee. non yaay ñoom ko dégg est làmb moo doxee noonu. bawal nag soo déggee lu tax ma ne la ñemewuñ ma si foofu laa ko teg. ku xam Ndiaye Tine xam ne moom punchman la. waaw la day bëri. day war ñu ko wax avance bala na buy sikki sàkk su fekkee bëgg na la am amul combat amul dara bëri na si morom nag. nekkul bawol kase dafa bëri ñoo xamante ne dañuy sóoraale Blindé aw ma ku may lijjanti si làmb aw ma ku may faale. <clears throat> parce que mbër laa mooy sama métier. Mhm. bàyyi naa métier yëpp ne benn diplôme laa bëgg am muy làmb. kon diplôme boobu dama koy damay assumer sama responsabilité pour réussir ci. beneen bi ñii duñ ma jël xalaatu ko. Tapha Lerr ñëw na ma hmm, ma du dugg foofu. mais Tapha Lerr amul lu muy ragal ci làmb yow amul lu muy ragal ci yow Tapha Lerr. Ousseyn dama ñëw ci côté kaa bool mbër yi mu wax ne jëluñu ko. Mm-hmm. xam nga làmb des fois. dangay dégg maa ngi sama staff sama staff. Mm. man yow mbër mi da nga bëgg a bëre ak adversaire bi. mais soit sa staff ñoo naa la xoolal keneen ko ëpp kii tur. comprendre nga. Mm-hmm. jël taamu loo ko waa léegi nga def ne yow mbër bi moo tàppe fekk demul noonu. tapet la bokk de. xam hmm. la bokk. parce que nit ki mënoo <laughs> ne doo da nga dem bëre ji Baye Mandione Baye Mandione 2 la mujjee bëre. yow xam nga ci bële. non tapet la ragal la naka la ko xam Ndiaye Tine mais nag ni mu waxee su fekkee ay promoteurs ñoo ngi koy dox nanguwul tamit. mun naa la limal promoteurs yi mun naa la limal promoteurs yi. dama dama la yow doo lekk avance. ñemewu du maag yow sax. ñemewu ko jël dire que. maanaam boog du combat. comme. moo la mën waaw non moo la mën du sama morom. kii fa la teg ba ne moom moo mën. non fu ma ko teg mooy si lu may liggéey ak si lu may wane. bu amee onze kaw onze kaw kii kii kii ku mu yab. non balaa ngay xam ne balaa ngay xam ne du combat beneen mi beneen mi ku mu yab. yow yow beneen yow yow lan nga fi def mbër. lan nga fi def ba taxaw naan ay yow maa du combat. yow beneen yow. nga déglu ko bul tontu. waaw xam yàggali bisimilah. <laughs> ay raisons kii ay raisons ma jàpp ko. ay ah, yàggali man nag bu tax boo tax man am ay ah. parce que li def li may liggéey. yoo xam ne nga hmm. bon en fait bon. man xam naa ne man ak yow du combat. te dama ko teg fu wóor. dëgg la yaa ma jiitu ma jiitu si làmb amul problème jëlal. te yàlla mooy def loolu si nit. Hmm. bokkuñu sax maa yow yowuñu te làmb du ñu mus a boole. soo demoon ne la Blindé laa jël si baaw bawal mu dem si baaw bawal du ko jël xam la tax man du ko jël su demoon si baaw bawal ne la carrément Blindé laa jël da ngay dégg ñu ne la delloo avance. wala Ousseyn ah. Ah. barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mm-hmm. ci wéeru koor lañ ne damaa woor. Mm-hmm. avance bu ñu tey tey ma ñibbee ko sama kër. Ah, te bu ñu bëree dinaa ko bërale ba mu xoox ma door ko ma du ko sax duma dama koy jàpp daan ko. waaw wax na ba pare. dafa leer. su fekkee bëree daa ko mu benn. su fekkee xam làmb rek gënuma xam làmb yow. ñaar gënuma la xam làmb. su fekkee maanaam boog jihaat man badar laay def. man badaruma. yaa ngi dégg est-ce que man non dama lay expliquer rek. non jihaatuma man ni may daan si làmb simple sax daanoo leen. foo ko teg. yaa ngi dégg lu may def si làmb simple ni wane si bopp yow kenn xamula si. foo ko teg. yaa ngi loolu amul su fekkee da nga yaakaar ne combat li nga wax amul boo nee yow li nga def simple daf ma ko simple loolu loolu amul. non si yow loo def ci simple loo def ci simple lu cadre bëri non ma ma deful dama lay def comme bébé non loo def ci simple lu ma deful yow wallaay non wax day leer waaw nee nga def la man lu ma li ma def ci li simple nit ñu ngi koy gis su ma waaw si xam nga tam ñu ñu ngi déglu xam nga soo naree nekk fii moom dafa daf ma ne. Mhm. li ma def ci simple dafa ko ci simple. Mhm. ñu ma daan daanoo leen. simple man a ñan nga daan simple. bëri na dem ma ci trois personnes yoo xam ne actuellement ñu ngi toj. ñu ngi toj waaw booy fay. ak kan. Euh, Grand Manick. Grand Manick kay bokkatul. waaw bokkatul. waaw Gane waaw. bëri na su ma ko doon fi jógee. waaw. bébé jën su ma ko doon lim di ma si nga xam yow ñi nga daan man. nga est-ce que xam na man ñi ma daan man damay kale foofu. ñi ma tudd seen tur nii nekkul dama leen mën làmb moo ma boole ñoom mm-hmm. ma daan leen tey suba mun nañ ma daan. parce que ci média lañ toog mun nañ ko gisee neneen. Mm-hmm. loolu damay day def li ma leen daan daa lu ma jomm. Mm-hmm. man dara jomm ma si suuf. kii moo ma laaj ma bëri ci mbapat bëri na su ma doon lim du ma su ma ko doon lim di benn benn da xam ne carrément pour ma daan la yow vite la. jafewul de waaw mais xam nga waaw moo tax ma ne moom xam moom ñi mu daan la wax. moom man ñu ma daan ak man ñoo bëreel. est-ce que bëri na ak ñoom. non leen ci làmb ci simple bi laa xam ne moom ñu ngi ci kaw simple ba léegi nii. waaw yow ñaan daan naa général Malika. daan Zambala. daan Fodé est-ce que dégg nga ma. Mhm. bëri ordinateur. est-ce que dégg nga bëri teewu màngu. nga ne ma ñaar. man ba léegi nii maay compétir ci bëri simple bi. waaw yow dem drapeau chef de l'état. booy fay mu ngi nii ba mu. est-ce que dégg nga ma di bëri. est-ce que dégg nga ma. si dara. mais mhm. moom mu demee si simple bi doon loolu. yaa rien de voir ak lu ñuy def. Ousseyn. yaa ngi dégg est li ma bëgg nga xam mooy. Ousseyn man ñi dàq bëri ci lamb ji ci laa bokk non loolu am na mais nag temps doo barke yonent karim billaahi wallaahi wa taalaahi belende mii bu fekkee mën na ma daan yàlla bu ma gis rek sëñ bamba yomal xiyam kii mën ma kii mën ma yëngal nga teg loolu kii bu bëree ay mbokkam xeeb ko billaay walaay wa lii la doon wax ci combat yi mu jot a naa ko ci mbër. toog naa mbër mu ne ma doo dara nangam nangam. ah mais non non non est-ce que est-ce que naa dégg ci mbër. ban costume ay xeeb ak ay ñii ay lee yow wax garaaw plateau man lii su fekkoon dafa teg ñu takk ngemb bi takk jaaj yi taxaw. non du wax li mu wax du ko wax non mukk jamais. non Ouzin ki xamul Tapha Leer kon. damul nga laaj te wat ma kuy Tapha Leer. man aw ma daraay aw ma daraay science. suñ doon bëree day neex xam nga tax ma ne suñ doon bëree day neex. billaahi laa lay waatal suñ doon bëree xam lu tax muy neex. dafa damaa dégg si biir waxam sànq. si mbër. muy lan mu ne moom du reculer. barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. kon ñaari attaquant suñ dajee loolu. loolu wax man ñi may xam nañ ma Tapha Leer mi ñoom xam nañ ko ne xam nañ Tapha Leer moom amul daray lu muy sama fit sax moo may xañ yu bari ci ñu ci mbër. respectéwu ma mbër ak loo mën a ma reculer mbër ak ñaari pas arrière. dafa leer sa combat yu bëri seetaan naa ko. muy bon muy affaire. sa combat yu su nekkee fii daal ay eh, la plateau bu ñu toog rek wasaare la moom day mosuma ah, mbër mbër mosuma dóor mbër mosuma bu ardo ma dóorante yow yow ay mosuma bërëk mbër ma waxati ngay wax mosuma bërëk mbër benn ñaari eh, round waxati ngay wax waxu dóor c'est comment yow yaa fii foo toj yow kii moo kii kii kii ku mu yab yow kii osé na de. doxuma naa wala wala mel man lu ma bu sa wax dama koy def. man mbër mosuma jàpp daan ma. ko ma commencé mbër jàpp ma daan ma loolu ku ma ko. jàppal ni nag soo ma ko def ma tiki sama ngemb. mais nag lenn laa bëgg promoteur yi lay woo. la soog la daan. yow da ngaa yow yow yow sa waaye kii bu ma tax a wax waaye nga sum waaye tamit nga naan ba ma kii mënoo ba ma de. kii billaahi wallaahi bu duggee ci bu duggee ci man dugg ci lu nen gis loo xam te ne dina toog naan mais nu mu demee nii. mbër boobu mos a bëre lii nga koy wax te après yow da kii da ngay wàccaat si suuf. <laughs> mais nag li ma bëgg mooy promoteur yi lay woo jox sa combat. Ah. nee nañ seeti kii ci ñeme na laa jël te yow. Ah, comme que bëgg si Bawol Bawol loolu wax si promoteur am promoteur yoo xam ne am combat ñu bëgg. waaw. soo leen nee diw du du leen jaral dem foofu. yaa ngi dégg sa. Mm. wante man dafa man aw ma mbër bu may bàyyi. yaa ngi dégg sa soo gisee kii lu tax ma bëgg ko ma bëgg sax bëreeg moom sax lii moo ñu boole wasaare. lamb lamb ah. moo ñu boole. te bokk woon sax sama bilan. man sama man bokk woon sax sama bilan man bu ko ci bilan am. kii ma kii xaw ma ko sax. waaw dëgg la am ci moom. moo xam nga day wax rek. billaahi wallaahi mais toog man la ñuy waxtaanee. Réfan waaw Réfan dañoo am temps kii. Réfan dañoo am. bis boo lekkee avance bis boo lekkee avance dootoo ko defati. moom day comédien nii ñun ci ci. man musuma comédie man ku ma xam dëgg xam nga ni fula boo ne ay bool ci ci man lañ nag di détail ci man yow bool dañoo am temps. bëri yoo xamante ni ñu ngi fa. yow dañoo am yow mbëri mbay guy gee Zarko. maag Zarko la woon de. daa am mu daa mu demee rek mu yàqu mu dem jëli mbay guy. mais yaa Zarko la woon. déggoo lu ma ku ma fi baax. daa am ñu ma war a bëri damay bëri ak ñoom. dañuy wax n'est-ce pas. wax la ñu toll damay wax. bu jëf jotee nga jëf. su man may weesu jëf <laughs> man duma ma du ma la du ma dox di gestu. Oh. te tafalee <laughs> nag bu ñu géewaloon. bilaay mun ndox ñëwaat. non loolu si làmb ko daan. sa déggul ma la man bañu ndox ñëwaat. Ousseyn tëdd rek. Ousseyn. Mm. moom dina tëdd rek loolu naani ndox ñëw ma soog ko daan. waaw déggul ma la man bañu ndox ñëwaat. Mm-hmm. ndax dina tëdd. laajal ma ko ndax dina tëdd. kan ma tëral. yow amul maturité bi amul xam-xam bi amul kattan ba. non na moom aw ma kattan aw ma xam-xam d'accord ante dinaa la daal. gis ngeen mbokk yi ñi lay demee ci jàmmaarloo ñi lay demee ci jàmmaarloo gis ngeen ñoom ñaari mbër yëpp ku ci nekk bëgg na sa morom di ñaan promoteur rek nañu xool combat yi nga xamante ni amateur bëgg nañ ko xool combat yi nga xamante bëgg nañ ko ndax mu jaral leen ñu mën cee def seen xaalis mais bu dul bu dul bu dul bu dul belende bu dul ñoo nekk sa kanam. man du ma benn parce que mën nga cité mbër. man képp koo xam ne borom teel par na pour bëri ak man rek man na ko fi di taamu muy muy kuy soog dugg ci làmb ak. Mhm. kaw ak ki ma tollool ak ki ma raw ak ñëpp promoteur instant xam la bëgg wane sumu boobu. parce que maa ngi woon ci bëri ñëwaat def bu garaaw ci arène bi parce que dama ñu ne sama ginnaaw am ko dama ci di sonn ci man guddeeg bëccëg suba ngoon mi ba dara di sonn ci man guddeeg bëccëg suba ngoon di sonn man kaw dama ko war dama ko war a li may defal parce que man tamit la ko xam ni man man góor laa man su ma defee dara teg nga ma kersa soo ma defal su ma mayee 1000 francs nii damay damay am kersa pour xoolaat la. looy bëgg mooy ñëw fay la lu ëpp li ma defal. su ma amul rek day nekk day nekk day nekk tension ci man. te dafa bëri ñoom dañu maa lebal loo xam ni la ma ko war a fay. Hmm. comprendre nga moo tax promoteur ku ñu pare pour bëri moom pare naa parce que boo gisee man la Bulldozer sax boo gisee ma bëgg ko jaay sax loolu moo loolu moo tax. ma bëgg na jël Bulldozer proposition yu gën a risque kooku mais bëgg seen ma bëgg ko def rek muy jël ko pour war a war a sama bopp ci làmb waaw. boo question. waaw bu dul bu dul bu Leer. ñooñu ñoo nekk sa man damay cité. moom du cité. waaw man damay cité. aja parce que mbër am na foo xam soo fa tollee si cité ngay toll. man dama weesu foofu. <laughs> nest pas. waaw baax ba ma bëree ba léegi xaw na yàgg. Mm-hmm. juin laa bëri woon. ñu ngi du a duggaat si juin mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. kon affect boobu man Eumeu Sène junior laay waxal ba pare. Eumeu Sène junior la moom Eumeu Sène junior lan la des ci làmb bay toog si télé bi si média yi di ratatate wax. Eumeu Sène moo daan Boursine. Boursine la daan. waaw waaw Boursine la daan daanu fi Balla Gaye daanu fi Modou Boursine la daan ñun ñu daan ay mbër. n'est-ce pas. Mm-hmm. su tax de ay belede mu may tëkku nekk nangam nangam am benn grand boo xamante ne moo tax du ñu bëree nangam nangam. léeg-léeg yaa ngi dégg. leen ma ngeen toroxal ma loolu nga man su ma toog ak yow nga may wax du ma dërëm du ma dërëm ma xam ne yaa ngi bëgg a bëri wax damay dem jël la duma la ba ñëpp xam ne duma naa la. li ma wax bu ñëwoon tey tey tey tey. doon bëri ma ak yow dinaa la def loolu lu la góor musta def xaane moo topp di ma neexal li ma teg di ma bong bong. déggul ma ma wax naa la ko sànq. non si ma wax ba pare. di ma tegal di ma tegal samay maam. pour daan ma noo wala. yow la daan dañ la tegal samay maam. <laughs> ñoom du ñu non yow yow ne. bilaay sóoru la sax. yaa déggul ma ci lenn. ku bëgg a daw nag li wax. non la ci dara. ma ne sóoru ma la ci dara. non su bëgguma sangu sóon. lay wax rek yow lijjantiwuma la ci dara. ànd su fekkee dañoo ne bërëb lijjantiwuma la ci dara de. billaay wallaay man mosuma duma mbër sax may def may dama ma jëlee. waaw. bisoo ma jëlee. di nga xam ne jël nga góor tiki. promoteur ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi lay. ñu ngi ñuy seetaan nañ nañ. su ma demee ñibbi sax gars yi dal sama kaw de ay lu tax nga koy laaj. laajoo ma de. yaa ngi dégg laajoo ma de li nga wax fii léegi lii moom boole. <laughs> wasaare làmb beneen bi si topp beneen bi si topp li ma Eumeu Sène junior. Mhm. moo gën a rëy làmmiñ ñëpp. ñaareem moo gën a rëy làmmiñ ñëpp. ndax suñ taxee mooy grand moo tax bëri ñu Aziz Sall yoonam nekk si moom noonu lu mu sekk Aziz Sall moo Aziz Sall li mu sekk Aziz moo Aziz na ñëw ñu bëri. beneen bi si topp mooy. Mhm. Gamou Gueye. Gamou Gueye bu tënkee. moo gën a tàppet ñëpp bëgg lu yomb xamagul tax amagul combat sax lu doomu ndàngu bu nekk fii góosam bi dafa saf dafa su jógee si combat bi na ñëw. Zarko na ñëw bàyyi moo fi bàyyi ma ñor. kon xam man ragaluma ñii faalewuma ñii. yaa ngi dégg est-ce que yaa ngi dégg est beneen bi si topp mooy lan. Mm-hmm. mooy général bu faas. ay combat ku ñëw ma bëri. combat neex doo nga fi lim de. yaa ngi dégg est-ce que amul kenn koo xamante ni dañuy toog ñu taxaw si biir géew ñu ne combat du combat da ngay wax lu nooy rek. wala bëgg nam moo tax nga dem wuti ko nañ bàyyi loolu ñu ne ñoo yàq làmb suñu jógee ñu ne làmb ji yàq na làmb ji yàqu na. ko yàq promoteur da dem seeti mbër na ko yàgg diw mu xam ne kii combat la ah kii de cinquante cinquante la kii de dinaa wuti ñaan dëgg dinaa entraîné dëgg coono yooyu lañ du fekk te làmb coono la ku def nii fayam. solo travail fay soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. waaw xanaa di santaat rek bu baax a baax waaw di nuyu sax. moom xamatul fu mu toog. <laughs> bala yàlla toogal. di sant non dama doon dama man soo ma jegee tamit wax nga ci ma ah munoo leen ci man. wax rek ngay def Ousseyn. waaw maa ngi nuyu Sénégal encore fois. di sant bu baax. waaw laa ko ndax day def lenn. dala dala dala bëgg a wàññi wala boog mu dugal ko. man fu mu toog man fu ma. nekkoon dégg nga moom téléphone la li ma ko bëgg a wax dinaa ko wax. ko jarul jege wax rek wax rek ngay def. waaw da ngay wax rek. Ah. waaw man li ma xam waaye nag dafa bëgg ngeen jëf la beneen bi beneen man beneen man ah. bëgg ko ma déglu. Ousseyn. am na wax man bokkuma ci mbir yi ñu toog ci palaatu yi wax lu amul. bëgg wala mbala ñuy wax loo xam te ni du dëgg dëgg ci ñoom. te gën a laaj sama sëriñ sëriñ Cheikh Bamba li borom daara. soo jëloon combat bi nga dem ginnaaw raay nga dem Réfane nga ñëw géejuwaay foo mu tax nga ne leen blende la am ñu ne la am combat. kon da ngay toog fii di wax rek di ay waaw mais yow nag da nga nag te déggoolu ma la man du ma bëree du dul combat. yow boo jël te ñu dafa am combat. déggoolu ma man ba dee naa la bañu ma dem ñendu ju ñëwaat wax naa ko n'est-ce pas. Mm. ah <laughs> bañu ma ñendu ju ñëwaat. bu leen demee xanaa tey rek bi ñu ñëw xanaa am loolu laal. déggoolu ma la <laughs> hmm? ñu bëri nag dañuy jiñ loolu si làmb. Hmm. ah parce que xam nga fit bi rëy. Hmm. dañuy yaakaar da nga koy jël wala nga ñëw. am na ñoo xam ne dañ may wax téléphone daal booy bi am na lu muy jël. fit bu rëy ak jëluma dara sama deret su tàngee damay xoolal fëkk fii sax jàll dem sama wet. pourtant sama jabar day toog na ma waaw bëlende suñu mbër bi day naan yow la soxla. ma ne ko seen mbër su ma ko su ma ko jëmee ba bàyyi ko. dina xam ne lépp dëgg la. sa jabar yi xamul la la wax lan la fa xam. Ah, benn la dafa yaa la benn la dëgg la wax sa jabar xamul loo xam. dafa nekk seize xam lu Blindé di doxee. te xam Blindé bu baax su fekkee kooku moo la wax lool xam na ma bu baax déedéet nga ne la jabaram yow lay supporté kay. dëgg ma loo ci doomam bu muy am sax ma lay supporté dama neex a faral man maa neex a faral dimanche <laughs> neex a mu ngi nii loolu ngay dem ci. Ousseyn <laughs> loolu dafay ko waa xam nga man ma nag seen mbir su ma eh, man ma dama ci tooñ lu bëri. dana ci tooñ billaay lu bëree bëri. waxal sa jëkkër ne ko waxal sa jëkkër ne ko mu jël avance bi bëgg sa xaw ma. non waaw yéen ñaar naka ngeen di def. non loolu moom di ci man gisul ci moom loolu ci promoteur lay dese. xam nga sa jabar. waaw mais man non dama koy bàyyi mu faral beneen ah. ma daan ko soo ñëwee njuboo. non est-ce que doo bàyyi mu dem siège toog. fa lay toog kay fa lay dama wax ne eh da toog ci beneen bi ba ma dàll ba pare nga soog ñëwaat. <laughs> non xam nga lii mooy làmb quoi. Ah. fii kenn moomul kenn kenn jëndul kenn. dañoo xam ne dañoo war a bëri suñu biir mm-hmm. ñuy bëri moom xam naa ne du ragal. Hmm. ndax su nekkoon ragal du bëgg combat bi. dëgg yaa ngi dégg am na ñoo xamante dañoo taxaw di wax Blindé su ma fayee vingt millions mu bëri ak moom te seen kase yeggul cinq millions. Eumeu Sène junior boobu laay waxal ab tapet la Eumeu Sène moom laay waxal ab tapet la am na benn mbër boo xamante ne man looloo ma si gën a metti mu ne maa ngi moom suñu dajee si mbedd su ma ko tëkkoo mu dóor ma. muy am na combat bëgguma tudd turam man xam naa ne leeru yàlla man su ma ma tëkku ko du ma dóor. te nee na bu ngeen tasee boo ko dëkkoo mu. su ma ko dëkkoo mu dóor ma du ma dóor wallaahi ajum du ma dóor. bàyyi kii mu tàggatoo dinaa ñëw ci loolu. puissance kàddu yu mujj yi. kàddu mujj mooy. di nuyu sama jabar encore une fois. Mhm. di nuyu sama papa ak sama yaay bu baax. di leen ñaanal bu fekkee sama njëriñ ci làmb. Mhm, amiin di nuyu sama goro. mu jigéen aussi. foog bëgg lu bëree bëri. gis naa ñaani ci moom <laughs> ñaani agsi na. Mhm. comprendre nga di sant sama doomu ndey sama xarit sama lépp. Gris Badara Ndione Serif Fa bàyyi yërëm mu ndaw mention spéciale kooku day sonn ci man ku rek bëccëg suba ngoon comme ni ma waxee léegi rek xam nga sama yéene ci man mooy ma xam ma fay ko li mu may defal parce que man dafaa man góor laa man ba gisee ma wut ak mbëri bëri mooy man dafaa leer man dama am diñ sama bopp man du ma ñàkk làmb da ñàkk sama fayda taxawaalu ci moom ni mbëri def xam nga mbër fu taxaw mbër nii naa man du ma dara man du ma saaru mbër yooyu man su ma toogee su ma ma bëriwul maa ngi sama roq nag ci li ma war a nekk. kenn du ma dépassé kenn du ma yab kenn du ma yablu xam nga. Mm. da ngay wet gore ko gore. autopsie si kenn nekk sama fayda. comprendre nga. Mm-hmm. nangu ma dara nag maa ñu ma war ma jàppale tous les côtés. Mm-hmm. di gërëm sama xarit sama doom ne ab buy Kër Massar. comprendre nga. Mm-hmm. di gërëm Baye Mor buntu nga di gërëm waa Pàcc ba Pàccu Pàccu Pàccu bant bi ne fële sama koñ. Pi bant yi ñoom Maas. xam nga ñoom Gomaay ñoom Serko mafia boobu nga xam ne su ma amee combat ñu chaque jour ñu ngi dagale xaalis pour bloc bee ñu war a jënd su ma amee combat waa pak ba xam nga ñooñu oma seen fay barke Serigne Touba. Mhm. surtout waa ginnaaw raay gi may yeewoo chaque jour oma seen fay. te gërëm waa Refane gu ma dëkk sama mafia bi ñoom Marxis ñoom Gourin ñoom Njool cere ju neex Fallou Diouf Moussa mafia boobu nga xam ne dañoo am combat chaque jour ñu may woo na am mbër kañ nga am combat man man dama war a man dama war a bëre man dama bokk ci làmb làmb waru man làmb war na Serigne Touba Mbacke dama ci bokk te dama war a jëlaat sama place ci làmb comprendre nga. te loolu nag li ma ko may mooy xam ne ko bés rek ci li nga war a nekk te aussi maa ngi ci ak ñi ma war a nekkal sama staff di gërëm sama benn xarit ASBM bu baax di gërëm ñoom Cheikh Ba. aussi xam nga sama benn grand bu nekk Afrique si Baye Lamine Faye maa ngi koy bëggee te gërëm sama grand Jija ak Diouf maa ngi koy bëggee lu bëri ak gaynam moor may bëgg gaa yëpp daal su ma limee damay juum sama rakk yi nga xam ne ñu la bokkal ndey ak baay maa ngi di bëgg ñoom ñëpp sama seex Fallu aussi maa ngi koy bëggee hmm. di nuyu waa Kër yëpp sama benn rakk nag maa ngi koy mention spéciale aat Baye Mbada borom Dubai port kooku tamit mention spéciale kooku su kenn moom laa gis waaw maa ak magam Serigne maa ngi bëggee sama doom baay yëpp waaw di bëggee samp yow nag wax ku neex la samp hmm. yow la waaw kàddu yu mujj avant tout damay gërëm soxna Tafa Leer bi. Mhm. ndax bëgg du bañ quoi. Mhm. te xol du om bañ koy bës. dëgg la te lu xas ba nekk si biir xol nekk lu ñuy dagg wala lu ñuy raxas. Mhm. yàllaa ko fa def. kon bëgg benn nit bu la bëgg rek jar na daw ba dee maa ngi koy nuyu bu baax di koy gërëm nga nuyu ma ko. dina ko dégg madame nuyu Tafa Leer. bu baax a baax. yaa ngi dégg di nuyu sama mag bu ma bokkoon ndey ak baay Ablaye Diop maa ngi koy ñaanal fu mu nekk xéwal yi gën a yokk tax gis naa nu may taxawee. Euh, Ouzin dinaa la wax benn affaire boo xamante ni xamoo ko si man. Hmm, lii lii yenn doomu aadama yi yenn doomu aadama yi ñàkk. Hmm. dama ko am te toog. muy lan te lépp loo bëgg a xam rek yónni yàgg yàgg bawul dara. lépp la lay hmm. su ma jógee si damay nuyu Ba bu baax di koy gërëm. Mansour Ba. ñoom Papa leen gërëm bu baax gis naa tamit ñu ngi jàppale ñu gars yaa ngi dégg jógee foofu damay nuyu sama benn grand yob Bakary Manga. ak euh, Aziz Sall comprendre di nuyu tamit xam nga prince mm-hmm. Amina Jabaay comprendre di nuyu sama benn grand bu ñuy wax Moustapha Kane na ko yàlla defal jàmm di nuyu sama benn grand bu ñuy wax Ndaw mm-hmm. Sayer Ndaw yooyu ñu jéen ngeen war a xam kooku ah. Sayer Ndaw yàlla na si yàlla def jàmm si la muy yëngu yàlla gën ko taxaw benn grand bu ñuy wax Pape Sidi comprendre di nuyu tamit sama benn euh, euh, bu ñuy wax nu mu tuddee sax Euh, sama groupe staff daal. Mhm. sama staff damay jël nuyoo bi rek teg ko si loxo Moustapha Ema. Mhm. muy nuyu mooy fan ci club bi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni carrément man aw ma fay waa parcelle. 1 mhm. ba 26 aw ma seen fay rawatuma na nag unité set ak unité 16. comprendre unité 15 su may lim du ma fi jógee. comprendre di ñaanal gars yi jàmm salaam di nuy suñu entraîneur gis naa lu muy daj suñu aadama ñaa. yal na ko yàlla defal jàmm te taxawuñu ndax dafa ku neex la. lu tax ma ne dafa cuq mooy maanaam boog su ma xoolee ma xool ko mu ne ma dina ma maanaam boog ñanduloo su moytu moom mooy ñandu ji. mooy loo fàtte. wala Tapha Tine waaw. maa ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex. Mhm. ak bu baax di gërëm gis naa ne muy sonn ci man ku rek bëccëg suba ngoon. di ko ñaan mu doon roi des di ko ñaanal rakam ak ay mbokam yépp di gërëm waa Bawol mbooloo. rakk ji la. <laughs> di gërëm waa Bawol mbooloo yëpp. di leen ñu am jàmm di ñaanal mbëri boole xam ne ñu am leen ndam. déglu ma rek wax geen bu bëggee. non non nga xam ne am combat. da war a bàyyi ba loolu sama xol mbay guy gi mbay guy gi naan lijjanti <laughs> mbay guy gi kewel. kooku moom ay sama rakk aussi. di ko ñaanal suñu ma a ko ndam booy bu dañ ko bàyyi xel carrière. ci yoon la nekk waaw di ko ñaanal mu am ndam ci combat bi mu jëm. Mm-hmm. comme war nga. Baye Mbada borom Dubai port naa la boole moom mu jàpp si. Mhm. sama xarit la xam nga maa ngi koy bëggee lu bëri bëri di gërëm yàlla ñëpp ku mu limul rek xamal na xel looy xel mooy. kii quoi xel moo jàpp di gërëm nag ñëpp di gërëm sam patron jagaloo aussi tamit di gërëm daal Sénégal yëpp moom entier waaw vraiment kontaan naa trop mais bu dag avant tout tamit avant tout tamit dama lay gërëm yow. Mm. Ouzin ndax mm. bi ngay def nii pour jàppale jeunesse bi la pour jàppale yenn mbëri. ndax mm. su la neexoon doo invité yenn booy parce que dama fiy gis yenn mbëri yi gën a ndaw sax da nga leen di invité fii. di nuyu sa caméraman yi parce que say waxtaan da ngay gën a am envie pour waxtaan. parce que dañ lay xool si bët di lay sii. Hmm. te loolu rek dool na doy na cant quoi mënoon na la fasal kanam dina ñàngal di Leer <laughs> euh, bi hmm. gën ko jàppale ndax mbër dafa metti hmm. lu ne di nga ko dégg nag ante bul découragé te soo gisee dëgg wax ko musiba laa nag mu jël ma dégg nga ok gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje maa ngi nuyu Aziz Fashion maa ngi koy nuyu bu baax a baax moo ngi fële ca Colobane moom tamit sama waay la di ko jaajëfal bu baax a baax ah soo joolaa jaajëf di nuyu nag waa Casamance waa Casamance Buyal Jërëngumaan Jéba Jindibo Sindialo Iñaañ Mampalago nooyu ñëpp sama mbokku joolaay yëpp nga xam ne ñoo may jàppale saa ba may combat surtout waa Buyal encore une fois maa ngi ñaan baax di leen waa Gàmbi aussi di leen ñox ñu yokk ñaan yi parce que kii ne ma la bëgg a bëral te dañoo war bëre man ak moom. ngeen ñaan rek mu taxaw. loolu laay mu taxaw rek loolu laay ñaan ñaan leen ko taxaw damay sant waa Saalum bu baax a baax Saalum bu si kaw bu suuf di sant waa Fatick Ñaaxar Ndangan Joal Palmarin Ngalung Ngulumaan Ngéej comprendre di santat xam nga waa Paal di sant sama benn grand bu ñuy wax Cheikh. Mhm. Cheikh Camara maa ngi koy sant di koy gërëm di sant soxnaam di sant ñëpp di nuyu waa Cambérène ñëpp su may lim di ma fi jóge kii du ma ko bëgg def man ak yàlla rek xam. Ousseyn daa am benn information bu nga jàllale sama xarit sama doom day ñagas. dafa war a ketal ñu ngi ciy woo mbëri bo ñu ngi ciy woo mbëri boolu yëpp ñu ngi la ciy woo nag bi la yow champion da nga ñëw belende ñagas moom ñagas moom kooku moom suñu xarit suñu doom ñagas dégg naa bàyyi na bëri lii de dina ko dalal de bàyyiwul bëre de ñagas muy entraîné dem rek ñoo bokk dem rek dem rek ñoo bokk entraînement bàyyiwul bëre de dem rek dem rek dem rek ñoo bokk entraînement dem dafa war a dafa war a ceetal la wit bii ñu ngi ciy woo mbëru Sénégal yi ah, yëpp mbëri Sénégal yoo xam la mbëri booli de mbëri Sénégal yëpp ñu ngi ciy woo mbëri booli xaw man ci sama loxo la ko teg man ak sama doom day Badara Ndione yaa joxe yaa jàllale communiqué maa gëm ne maa ko jàllale te man la teg lépp maanaam maa yor mbërum organisation bi jour xew bi maag sama doom day gëri sama loxo la ko teg la wit ñu ngi ci woo mbëri Sénégal yëpp mbëru lamb yëpp ak waa ah, lamb ñagas ñagas rek mooy amul xewa ñagas rek la noonu la demee jaamaaloo di leen jox dig beneen yoon ak yeneen mbër jaa